xam naa ne mën nga sax mën nga sax nekk mën nga au sax am xëy mais yor sa par exemple mbégte bi eggoon na foo xam ni. mais jombuloon kenn mu nekk fa man maak yow mën nga ne tax bun kër loxo tàllal après ak ndax yaa ngi xalaat effort bi nga war a dépenser suba booy liggéey <laughs> jël sa effort toute une semaine dépenser ko ci euh, d'accord merci beaucoup mm. euh, Khadim dinaa ñëwaat ak yow ci ci ci wàll boobu euh, professeur Ngouda gis nañu président de la République jël stade bi tuddee ko président Abdoulaye wadd mu def ci discours itam wax ni ni mu toll daanaka ci ci tolluwaayam noonu la ko dara jaale nga dégg discours bi nga xam ne def na ko fa euh, mais ci teewaayu nag ay président yu mu invité euh, président yooyu bëgg naa ñu jàngat seen ay relation itam ku mel ni Paul Kagame ku mel ni euh, président bu turki bi Erdogan ak président Gambie bëgg naa aussi loolu ñu ñu aborder ko euh, ndax am na ay présidents yu leen gën a jege itam donte c'est vrai que am na ay jafe-jafe yu fa am mais loolu itam muy Mauritanie wala Guinée wala Mali euh, gisuñu leen ci lu mel noonu ban jàngat nga mën a def ci loolu d'abord nga ñëw ci tur bi muy Abdoulaye Wade. waaw surtout loolu am na solo parce que je pense que en interne d'abord lay commencé. Mm-hmm. mooy le président Abdoulaye Wade. Mm-hmm. alors booba ba tey maa ngi wax ne. PDS école la mais école bi ñetti pàcc la. Mhm. chaque jour dama koy wax. muy lekkool de libéraux muy lekkool di soppi ak l'école wadiste. Mhm. ñetti école yooyu yëpp Ablaye Wade. libéraux soppi wadiste. voilà boo PDS il y a trois écoles. parce que dinaa dégg ay nit yuy wax ay lañu. voilà dinaa dégg libéraux dinaa dégg ay soppiste. voilà très bien. alors ñetti école yi le président Abdoulaye Wade benn rek la ciy jiite fi mu toll muy école wadiste donte moo créé ñetti école yi mais école wadiste rek a ko ci dese mooy ses inconditionnels mm-hmm. ñi mu nekkal ñi nga xam dañ ko gëm ma jox la exemple Pape sama Mboup ak Farba Senghor donte génne nañ leen sax PDS dañu dem créer mbooloom Wade mm-hmm. toujours yaa Wade ay wadiste lañ mm-hmm. am na ñoo xam ne Karim Wade ce n'est pas un wadiste c'est un libéral Macky Sall c'est pas un wadiste c'est un libéral donc boo xoolee lekkool wadiste mooy la ceinture autour du président Abdoulaye Wade les fidèles xam nga loolu nag réew mi am na fi solo même Lat Dior sax bi muy dem dans le champ de bataille bi muy dem sax déqale les derniers fidèles yi ko dese woon la demee léegi dafa am solo parce que école boobu noonu il fallait que PDS quand même parce que dama koy wax toujours regard sur une évolution le président Macky Sall dafay dabu parce que je sais que am na lu mu warloo woon ak président Abdoulaye Wade def ko peut-être que yedd na boppam wala am ko ko wax peut-être que aussi muy lan euh, le président Abdoulaye Wade parcours am dafa am lu mu ko may lu bëri c'est un parcours de combattant de grand guerrier en science politique maanaam am na lu mu def ba yegg si. mais bu ñu taxawee ci république lan nga ma mën a wax loo xam ni président de Macky Sall ameel na ko Abdoulaye Wade te defu ko. waaw mooy lii maanaam sargal ko. te defalu ko ku laa wax par exemple. waroon ko sargal xam nga bu ñu fàttee ni le même lieu en face ci stade centre de conférence Abdou Diouf ma nga fa te bu ñu fàtte ni le président Abdoulaye Wade combat bi gën a metti Abdou Diouf la ko mëneel. benn mais bu ñu fàtte ni le président Macky Sall daf ko doon wax tout le temps que peut-être c'est grâce à ses privilèges ak li ko Abdoulaye Wade defal mu yegsi fi mu yegsi parce que wóolu na ko mu jógee fu son mu propulsé ko ba muy ñëw fi mu yegsi kon ameel na ko njukkal lu ñu mënti wax beneen bi ci des mooy da koo remplacer cest à que nga tàggat nit mu daan la génn ci sa école du gàcce fierté la donc loolu kon amaloon na ko njukkal boo xoolee njëkkoon na ko fi invité sommet mu bañ lettre boobu noonu nit ñi mënoon nañ ko dem jàngat lan la ko wax mënoo jàpp sama doom tas sama parti jiiñ ma telle chose et cetera bëgg ni voilà da nga am ay gan da nga bëgg ma ñëw toog et cetera du ko def pourtant boobu Abdou Diouf ñëw na doon noonu na gën a rafet le président Abdoulaye Wade toog le président Abdou Diouf toog mhm. le président Macky Sall toog ñoom ñëpp ñu fotow Hmm. yaakaaroon naa ko ci stade bi nag photo boobu. waaw parce que boobu yaakaaroon naa ko ci stade bi. notamment ñu ne Abdou Diouf mi ngi ci dëkk bi ñu ne Abdoulaye Wade lañ ko tuddee photo bi man yaakaaroon. foofu loolu laa foofu laay ñëw sax moo lay wan loolu moo lay wan ni am na lu ci sincère mais am na ci loo xamante ni aussi dafa rax politique parce que man je me suis interrogé le président Abdoulaye Wade bu ñu ko tuddee stade sénégalais yi tardivement la ñu yëg ni moom lañ ko war a tuddee. La deuxième chose, il y une délégation du PDS mais ñoom jëluñu la parole te événement yu mel nii ki ñuy consacré wala dara war nañu mun a ñëw wax ci moom lu mu ndaw ndaw wala am ku wax ku ko waxal. te préparé woon nañ ko aussi. ah je ne sais pas woon nañ ko ñoom. d'après li ma ci am ci information. PDS préparé woon nañ ba xam kan moo war a sax lire. la discours de Wade. donc pourquoi joxuñu leen la parole. Mhm. loolu c'est autre chose te loolu day am leneen lu muy wane mooy est-ce woote yi ñuy woo. muy opposition muy lay Wade muy keneen est-ce que c'est sincère parce que barki démb wax naa ko nee bu fekkee ni Sénégal dañoo gagné ñu ne opposition bi ñëw leen bu dee Covid daf am ñu ne opposition bi ñëw leen mais bu amee loo xam ne ñoo ko bokk ñépp ñu beddi leen wala ñu pousse leen de côté moo wax la exemple la fête nationale c'est la plus grande fête de ce pays on n'invite pas l'opposition donc mën nañu douter sur la sincérité loolu nag jàngat bi mooy lenn il faut ñu bàyyi wure bi bàyyi jeu bi dem vers la sincérité man dama jàpp nii la président Abdoulaye Wade. politique nga may wax de di ma wax sincérité. ah bien sûr. ah, ah Pape. politique nga wax bëgg ma wax sincérité. waaw ah, xam nga tax may wax sincérité. waaw mooy politique mënta ñàkk. mais yàlla minimum de sincérité mooy lan. ah non minimum d' na mais voilà. sincérité boo ma ko waxee. ci politique non je parle man, de sincérité ci ni ma xamee politique <laughs> ci Afrique ci Sénégal. Mhm. man daf may jaaxal. pas un maximum. Ouais. mais à minimum. maanaam am na loo xamante ne affaire de gentleman la. waaw ah. maanaam la président Abdoulaye Wade waruñu sax di xaar ba ba muy budde lan moo fi jaar lu bëri dañ ko koo jiiñ lu bëri dañ koo jiiñ doomam et cetera je ne suis là man nekkuma pour défendre kenn mais lu ci bari dara leeru ci wala indiwuñu firnde ji lu ci bari ba ñu demee bitim réew aussi dañ ñoo condamné beneen bi ci topp soo xoolee xeex bi dafa metti entre opposition ak pouvoir Sénégal nañ ko waxante. xeex bi dafa metti te le président de la république moom am na ci responsabilité te je pense que mi ngi nekk di rectifier wu parce que je ne sais pas que comme c'est son dernier mandat <laughs> du ma kii di ko mais en tout cas man je sais que ni moom xam na ni sa famille naturelle c'est le PDS quoi qu'on puisse dire Khadim xam na li may wax parce que boo xoolee c'est l'école de libéraux qui est en train de se retrouver Idrissa Seck demul ci moom mm-hmm. Modou Diagne Fada fait partie de l'école des libéraux n'est-ce pas Omar Sarr. non boo fi lim non dañ fi yàgg quand même a wan ne ma bëgg la wan kon. bu retrouvaille des libéraux amoon tey. Mhm. man du bett du mus a bett parce dama jàpp ni le président Abdoulaye Wade da koo théorisé woon. ne woon na su sañoon libéraux yi ñoo fi nekk pendant cinquante ans beneen bi si nag mooy li ma laaj. suñu jokkalanteeg yeneen chef d'état yi mhm. na dama ci am jàngat boo xam ni mooy ñaari dëkk wala yeneen dëkk yu ñu yu ñu yu ñu yu ñu wër le doyen Babacar Justin Ndiaye ma koy jaajëfal da ko daan wax tout le mhm. am na solo dafa daan wax te un pays fait son histoire mais subit sa géographie daa am ñoo xam ne suñu dëkkaloo lañu dañu sës si ñun mënuñu fexe lu dul donc rataxal pour dund la bon voisinage donc ñu li gis ci événement yu mel nii dafa am solo et dina am lu mu leen jox xam nga boo nekkee sa dëkkandoo mu bañ la ñee mais muy xool ci yow pour dabbu la wala raw la loolu am na solo beneen bi si topp nag muy le président Kagame man dama jàpp ni am na solo moi je ne suis pas fan de Kagame. Mhm. parce morom de. dama jàpp non bari moom bari nga dëkk boo xamante ne respecte pas les droits de l'homme ou bien foo xamante ni réalisation mais am na loo ci solo moom mi ngi ñëw Sénégal tout le temps lan moo tax mu fi ñëw loolu dama koy wax tout le temps. mooy li nga xam ni mooy soonu titre de respectabilité mooy suñu démocratie mm-hmm. parce que amul fenn fii au moins fii c'est un pays de liberté on peut se réveiller lire un bon journal man su man man mën naa wax ni voilà keneen ak keneen ak keneen dara du la ci fekk loolu nag dama koy rafetlu parce que Sénégal mm-hmm. loolu am na ñeneen ñu fi ñëw di ci jàngat beneen bi si topp man dama jàpp ni aussi c'est quelqu'un koo xam ni c'est un partenaire boo xamante ni aussi am na solo parce que l'Afrique est en train de se avec ay paradigme yu bees. ay changement te dama jàpp ni président Macky Sall boo xoolee ñi koy xarab lu bëri ci côté boobu la mais moi je pense que loolu aussi waroon na ci mën a jubbanti c'est-à-dire que am lu mu tibbee ci Paul Kagame ci côté boobu noonu pour am un développement endogène beneen bi si topp aussi dama jàpp ni ñi nga xamante ni ñëwuñu te ñi ngi autour de nu mais situation moo ko indi te boobu dama jàpp ni Sénégal dafa sooxe. démb rek le doyen Alioune Tine man ak moom dañuy liggéey moom dem na Mali def fa dix jours la société civile sénégalaise ñi ngi def tout pour que Mali bañ a nekk ci situation bi mu nekk parce que dafa metti te man dama jàpp ni Sénégal taxawaay bi mu am war na taxaw beneen taxawaay donc tey je suis man catégorique le pouvoir kenn waru ko jël par les armes. mais s'il faut défendre s'il faut dénoncer les coups d'État il faut dénoncer les coups d'État par les armes de la Constitution. d'accord tur bi ñu taxaw ci. Mm-hmm. invité ñu taxaw ci euh, ku ne xam na ni euh, comme ni mu ko waxee.